tajaasa ci gannaaw bu mu dajalee mm-hmm. seen woo xelam mm-hmm. ci gannaaw boo xamee ne na lim koy war a wax ba pare mm-hmm. maanaam tajaasa ci gannaaw bu mu dajalee mooy ba mu leloo seen woo xelam wa mu wax la mu ne ko yaa bunayya yow sama ndoom inna hoo naka mbir xaddanaa jegeñ na irtihaali sama laxas minal finaayi tukkee ci dingire bii di àddina léegi man sama génn àddina soreetu waxti haali ak sama tusngeloo bi mir wadil fana ci tusngelu kaay ba moom jeex la hmm. te daanaka jeexal na hmm. waante yow nag bi hamdillah ci sant sama borom hmm. wali di yaadaa ji méngoo sama kóllëre waaw hmm. ah, tey nag alhamdulilah yow laa hmm. fi bàyyi pour nga méngoo sama gannaaw hmm. wa kapsul katibati yaay njiitu xare bi ak saasaan niyati bay ko jug saasaan min baadi ci sama gannaaw gannaaw tey yaa jiite katiba saasaniya su ma bàyyee ko yaa jiite katiba saasaniya mooy mbooloom buy kat yi waqaftul katiba di ay njiitu xare bi asasa niyati bay ko jug sasa min baadi ci sama gannaaw wa mislu kasa kem nag la yuqarawa defu fëggal la woo ñaal ko alhansa xet la tuqarawa defu fëgg la woo ñaal ko alhansa xet dafa am ku ñëw sul asbax alhadwani hakim la woon bu ràññee ko ràññeeku booy dem ci téere adab yi dañ cee gis ay ndénkaaneem yu ñor a ñor mm. dafa daan xàtte nag mm. yàlla dogal ma am doomu jigéen bu ñaw a ñaw du mm. ne bale mag nag xel mi xaw a jaxasoo léeg-léeg mu xàtte rek xàtte bi du xaw yoon moo doomu jigéen bi ne ne kon dangay wut xet su may xàtte nga toog ci suma pegg su ma juumee rek nga fétti xet bu baax ci suuf ma xam ne juum naa ma defet li may li may defet te nu mu baax a baax. xam koo xam ne wóolootuñ bàyyee ko mbir moom kenn la ko. Hmm. mu ne yow na tollu foofu ku la ku la xam wóolu na la. Hmm. wa mel loo ka sa kem laa tu xarawa te bu fëggal. Hmm. la woo ñaal ko. alhamsa xet. dina ko baax a baax. wala yunabbahu defu ko xeexee. bi tarqil xasaaj ci sànni jembaray dóor jembaray. jarul kenn da la xeexee nen. maanaam arab yi dañ daan su fekkee dañoo seet nit ndax dañoo dañoo nattu ni hmm. ndax xeeyoon de tukki ak de xare ji dañ ko bàyyi ba mu nelaw su nelawee ñu dal di jël benn jëm ray bu sew hmm. dal di ko sànni ci peggam hmm. su dalee ci peggam mu xeewu ñu xam ne kii mën na jiite xare mën na jiite tukkim liggéey su dalee ci peggam te xeewul nag ñu xam ne kii dafa bëri nelaw mën na jiite xare mën na jiite tukkim liggéey mu ne ko nattu nattu yooyu yëpp nag mm-hmm. yow jaroo mm-hmm. ndax xam nañ xam ne ku sotti nga mm-hmm. wa min lu kasa kem laa tu xarawa dee bu fëgg la woo ñaal alan saa xet wala yu na boobu te dee bu ko xeexee bi tarqin xasa xasa ci sànni jembaray walakin li fi nekk xat mu di ba xooteef na iral iskaari jëm ci fàttali waaye nag fàttali moom ñu na ànd wala kir bay na sikra tan faxol muminin wa joxe la defees na ko say xalan muy fompukaay afkaari ñaal xelaat yi naka jekk day fomp xel wa inni man aussi ka maa bi maa ci loo xam ne lam yoo si dénkul bii ci moom siisu siisu alam bàttal na ba di mooy ay maa ngi lay dénk loo xam ne siisu hmm. dénkut ko woon hmm. ay doomam hmm. wala yaqub yaqub dénkut ko woon alas baata ay sëtam alam baat mooy sëti siisa yi alas baat mooy sëti yaquba yi alas baat moo dikk ci alquran li ma lay dénk daan dénkaane lu am solo la te yombut ñii ko dénk nit waxfas nanga mokkal wasiyati sama dénkaane mm. kon li ma la wax nanga ko takk bu baax mm. wajaanib te nanga teet maasiyati sama moy mm. te it nanga bañ may moy wax du te nanga roy misaali sama misaal te rëdd bi ma la rëddal nga jaar ci wafqa te nanga xam am saali samay léeb fa in naka naka yow init sarsatta boo sàkkoo gindeekoo bi nosi ci sama laye biir wastas baxta te nga hutal leer loo bi sub yi ci sama soo walla ci sama leer su fekkee sama leer ak xelaat doy la def nga ko ci sa kanam muy lu lay giide a fay naka naka yow init sarsatta boo sàkkoo gindeekoo bi nu xii ci sama laye biir wattas baxta te nga sàkko leer loo bi suuf yi ci sama suuf mooy sama leer ak xel sama leeru gis-gis soo ko defee am raxan naat xaanu ko sa hôtel li ma la wax ni soo ko defee da nga am naataango de sa barab dara dana fi de warta ma te yëkkateku du xaanu ko sa soxat te sa tur dana koxe de wayin tanaa say te boo fàtte fàtte loo nag suurati sama njàngat li ma wax ni soo ko jéema fàtte fàttelu wana basta te nga sànni ma suurati sama xelaat li ma la xelaatal nga ko xallan ni ramadu asabika doomam say was xallan ni ramadu asabika doomam say was li jox boo ko xayoo sa tiranga man nay manqué de sa man man man nay manqué de wa sahida te dëddu ahluka sa ñoñ warastuka ak sa gaño fii ka ci yow te na saman man bu manqué bu manqué sa mbokk yi liñ yaakaaroon ci yow manaloo leen ko dañ la jox gannaaw de da ngay wéddi waaw wa sahida te dëddu ahluka sa ñoñ warastuka ak sa gaño fii ka ci yow yaa bu ne yow sama ndoom inni naka man mm. jarabtu nattu naa xaqaayiqal umoor dëgg dëgg mbir yi hmm. man nattu naa mbir yi hmm. wa balawtu te man nattu tafaarifa duhóor soppati jamono yi hmm. nattu naa soppati jamono yi faraaytu ma gis almar awaay bi nasabihi mu ne ci halalam la bi nasabihi waaye du ci hakkanam man dafa bëri yu ma jaar su ko defee yi ma jaar ma def leen ay jàngukaay mm. yi ma jamono wan mm. waaye ci biir samay jaar jaar ak yi ma jamono wan daal mm. gis naa nit daal na xam lu mu jàpp waaw faraaytu ma gis almar awaay bi na sobi yi mu ne ci askanam mu ne ci alalam na sob seen bu tooy mooy alal laa bi na sobi waaye du ci askanam alors ci diw la bokk rekk daal loolu doyul ci nit wal faxsa ak ma gis gëstu hmm. am maksa bi muy ci faggu waayam hmm. laan xasa bi waaye du hmm. li ma gis daal nit ñi ñoom bu ñoo laajte nit pour da xam dañ hóoloo jaxasoog moom wala du ñu hóoloo jaxasoog moom lu ñuy liggéey ak nu muy xamee dara loolu la ñuy yu mbokk yooyu lu ñu ko laaj loolu daal wa kuntu nekkoon naa sami'tu di dégg ne nag hmm. annal maayusa naka dunduwaay yi hmm. imaaratun la hmm. wa tijaaratun ak yaxantu wa ziraatun ak mbay wa sinaatun ak xarala muy métti bu jëkk nag dama daan yi fi nit ñi yëngatoo pour dara génnul ñeenti mbir benn bi dangay am ab mansib mooy dañ lay fal dara mm. nga de liggéey ca lañ la fal mm. da ca am loo jàllee mm. wala benn bi dangay def tijaara da jënd ay marchandise da ko jaayaatee noo ca amee dara man de wéy ci loolu wala boog nga de bay boog te defi tool wala boog nga xam métier boog di ko doxal ñu ne ouvrier nga dangay ñaw wala da ngay dawal oto wala da ngay tëgg wala da ngay leneen man daal lii laa gisoon nga déggoon mu ne fa maarastu ma jànkuwante haadihil arbaa ñeenti métier yëpp jaar nañ li am bura ngir naa feet ayyuha kan ci ñoom aw fokk moo gën a dëppoog man waan faxote moo ci ëpp njëriñ ndég hmm. bëgg a xam ana ban moo ma ci gën a arrangé man hmm. ak ban moo ci ëpp njëriñ hmm. famaala su ma jàm ko ante haadil arbaa ñeenti yi li ngir naa xool ayyuha kan ci ñeenti yi bokk moo gën a dëppoog man waan faxte moo ëpp njëriñ fama ahmadtu so santuma fii ha ci métier yooyu wala min ha min ha ci ñoom maye sotun dund wala sax waxtu neex lu huma yaa lu huma gisuma muy lu yaa mm-hmm. fii jamee sa sun dund mm-hmm. ñeenti métier amu ci benn boo xam ne seet naa ko mujj wu ma mm-hmm. amu benn boo xam ne dundin bu ma neex am naa ko fama ahmadu santuma maye sotan dund min ha ci métier yooyu wala sax waxtu neex lu huma fii ha ci métier yooyu aye sotan dund amma furasul wilayaat yi hmm. ndaal màng ak yi bu dee imaara hmm. mbiru pal hmm. waxulasul imaaraate tey fifi nguur yi fakk adxaasil ahlaam mu ngi mel ni ay gent yu amul firi rek wal pay ak ker al muntafixi gudaa ji folle ko bi xala mi ci bu dee affaire u ñaan fal nañ ko nangam mooy nangam daanaka rek comme ay gént yu amul firi la mm-hmm. comme keroog ngoon la léegi la comme keroog ngoon la mm-hmm. léegi la ndama guddi mm-hmm. jëlee ko te la bu baax a baax bu ñu xasee ba ne fal nañ ko daanaka rek na rek sooy bon moom nga xaar ci moom bi bu set te la bu baax a baax amma ndaal màng falte yi garaat yi wa furasul imaraat ak sibi nguur yi parce que alxaafi ahlam ndax loolu la. parce hmm. hmm? que alxaafi ahlam mu ngi mel ni ay gént yoo xamul firi rek. Hmm. day nax nit rek. wal fay ak ker al muntasixi gudaa ji pare. bi salaami ci lëndëm. wanaahi ka nala doy xusatan ci pot. bi mararatil fitaam ci wax ci wex ak te itam ñaare nguur foo ko nu métti ca borom. noonu la jeexee. parce que foo fekk rek folleeku bu yaaw mm. nu métti ca kañ solo mm. noonu la jeexee mm. loolu moo tax tawaruma ci dégg nga wa amma bada ihon tijaaraat ndaal marchandise yi yaxantu yi nag su dee wàllu tijaara di jënd marchandise di sottandeku kooku fordatun gaarluwaay la lu ñu gaaral la lil muxaataraati ci mbambari ci wëradi kooku borom toujours rek ci ci risque la nekk. Mm-hmm. watu omatun te ñam la lil xaaraati ñaar lokk yi. Mm-hmm. te itam bu nekk yaa ngi ci buntu kasaar. ba mm-hmm. maa lëf lu màgg asbaaha nitu loo na ko. bi toyoori ci njanaaw attayaaraat yi daway naaw. léegi ñu romb la fi yëpp. xay day dikk sa loxo bari lool. waaye léegi rek mu jeex dara du fi ne ati. mbiru commerce daal. daanaka lépp risque la mm. te itam daanu daja yomb mm. wa ama ba da yoon tijara mm. daal marchandise yi yaxantu yi bon de sun lu ñu gaaral la lil muxaataraati ci mbambari yi wa toomatun te kem ñam la lil xaaraati ñaal lokki yi wa maa lëf lu màgg asbaani du loona ko bi tuyoor yi ci njanaaw atayaraat yi nawakoon waa matti xaasu diyaa daal jàpp ay bagaas nag wa tasaddi ak gaaflu lil istira ngir mbay leen di jël ay matériel naan damay bay nag ko bom fa man hëkkatun sabab la ci xotti lil enradi ñaal ñaal deri kooku daanaka rek da ngaa xeblu sa bopp ndax buñ na baykat la rek mooy métier mu amul solo la xel yi rek wa quyudun te ay tënk la ayiqat nir way gàllankoor an ilki an itikaadi walit buur te itam mbay day ceeni nit rek waxtu bu ne wa xalaa néew na bu fexee rabbuha boroomam min idla an idlalin ci toroxal aw rufiqa walla ba warta galees ko aw xabalin nof la yaqol walla fiixa xol boo ci nekkee heure bu ne rek dañ lay suufee de la xañ mm-hmm. ne itam ci jaaxle ngay nekk mm-hmm. bu taw bi nga jaaxle mm-hmm. bu tuutee nga jaaxle bu gaaw a taw nga jaaxle bu yéex a taw nga jaaxle heure bu ne yaa ngi jaaxle rek waa maa xiraf uli sanaa sinaa daal métier yi borom xarala yi nag bu dee métier yi borom xarala yi nag kooku fa xayru fadilatin duumu aji def hmm. an la xawaate walis dund yi hmm. métier ñaare koo dégg ne ubbeeku na ji fa hmm. caa am lu mu wéyee rek waaye yaatu ba ñu bëri xaj ci daanaka du ci am fa caa am lu mu wéyee rek mën na caa am kër gum dëkk rek mën na caa am oto bu may war rek waaw mën na caa denc ay naw leen yore leen ci rek loolu lépp luy gën di génn loolu muy mm-hmm. ci oto bi ci safoor bi mm-hmm. ci tayoor bi ci ministre bi noonu la demee dégg nga mm-hmm. waa maa xiraf uli senaat daal métier borom xarala yi wa xeyru fadilatin duumu aji des ala quwaati walis dund yi wala nafiqatin te duumu aji hëwu fi jamee al awqaat ci mbooleem waxtu yi te it dund bu ne la dox ay gudd la ñuy xam dox rek mm. dellu taxawaat mm. wa muxdamuha te li ci ëpp nag maasubun mm. lu ñu takkala bi sobibatil haya ci ndawek dund kon ñi jàng loolu te lum ci lu ci gën a bëri yëfi gune rek la waaye boo demee barab bu gune rek doo ci mën a tegoo wa muxdamuha te li ci gën a li ci ëpp maasubun lu ñu takkala bi sobibatil haya ci ndawek dund baax na ñëwaay bu ñu jullee rek dal insha

tin duur aji def anil aqwaati walis dund yi seen liggéey kem luñ dundee rek la ñuy am kem luñ dundee rek boo liggéeye nit ki mu fay la rek nga lekk mu jeex nga xaar beneen liggéey lu kar rek bu dikkee fay rek nga liggéey lekk mu jeex mu ne métier ouvrier loolu moo ci ëpp wala naafaqatin te duumu aji xawu mooy suyee fi jameel awqaati ci mboolem waxtu yi mm. te dul lu xam ne dafay sax ci def loo gis rek ab diit lay am mm. ab diit lay am rek mm. lu mel ni kii ñëw bu fet di jublu si ni muy bëree kiliyaan bëri ñu ko soxla su fet joxee gannaaw doo ko gisati gis nga bu baax a baax wa muxtamuhaa te li ci ëpp sax nag masubun lu ñu takk la bi sabibatil hayaa ci ndaw dund te itam lu ci bëri yëfe ndaw la mm. waaye bu am mag dikkee rek mm. dootoo ko mën a tee doxal borom du ko mën a tee doxal mm. walam ara gisuma daal man maa lu xam ne huwa moom baridul maxne mi aji sedd ci màng la ladidul matan mi aji neex ci cafka la waafil maktabi aji mat ci càkkutéef la saafil masra bi aji sell ci naanu waay la illal xirfata ndare métier mm. allati métier mi nga xam ne mm. wadaa tegoon na saasaanu saasaan mm. asaasa fondement xam wana waxate mu xeetal ajina sa ay xeetam man daal métier yi daal bi ma ci gis mu sedd te nekk métier am teranga bu baax mooy métier moomu nga xam ne suñ maam saasaan moo ko fondement moo ko defoon itam ay xaj walam ara man daal gisuma hmm. maa loo xam ne huwa moom baaridul maghnam aji sedd aji sedd ji màng la hmm. kem mangu gu sedd la mooy xewal gu ñu sonnewut la mm. ridul matam aji neex ci cafka la mm. waafil maksab aji matal ci faggu waay la saafil mm. masrab aji sell ji naanu waay la illal xirfata ndare métier allati métier mi nga xam ne wadaa tegoon na saasaanu saasaan mooy seen maam asaasa fondement wana waate mu xeetal añ naa sa ay xeetam waaw dara ma temu taal. Mm. naaraha safaraam. Mm. fil xarfi xëy na ci penk penku ak xarfu. Mm. mu métier moo xam ne moo ko yaatal ci àddina bi. mu àgg fu ne. waaw daxa temu leeralal. li ba ni xabra a ñaal ba nu xabra mooy ñooñ suusi. manaaraha lampa manaaraha manaaraam. sàllaw moo ko xàll wane ko. man daa métier boobu laa ci gis. fa sohittu ma fekke waqaiha ay tabi waayam. mualliman mu di aji mandargaal hmm. gis naa ne daal fu mu xewee rek hmm. dana am loo fa xamee lu bees wala loo fa déggee lu bees hmm. waxtartu tànn naa fii ma ha mandargaam sa man muy mandargaale kaay lii ñu hal man daal bëgguma ñu tuddee ma menn métier di ma askane menn métier lu may métier saasaan moomu bëgguma ñu ma safoor bi mm. bëgguma ñu ma ministre bi mm. bëgguma ñu ma baykat bi mm. bëgguma ñu ma commerçant bi bëgguma ñu borom grade fonctionnaire bi man daal li ma bëgg ñu wax ma mooy wéyaankat bi loolu la loolu la bëgg daal waaw wéyaankat bi loolu la soxla waaw waxtaatu tànn naa siimaha mandargam métier moomu mi saman muy mandargale kay lii ñu xaal ma métier saasaan mi daal bu ma kenn tuddee lenn lu ko du dénga man buñ ma tuddee fonctionnaire déedéet mm. ah buñ ma tuddee commerçant mm. buñ ma tuddee mm. baykat buñ ma tuddee ministre buñ ma tuddee tailleur buñ ma tuddee maçon buñ ma tuddee chauffeur buñ ma tuddee lenn eh, nañ ma tuddee rek woyankat mais ci moom laa tànn is ngir kaanat nekk na mu almatjara di yaxantu alla di yaxantu koo xam ne lay bóoru du mu lamb ndax liggéey la boo xam ne amul sartament déedéet amul sartament wal man hala tey naanu waay mm. alladi boo xam ne lay xóoru du mu ŋacc heure mm. bu nekk rek mu ngee mm. amul ci buur yi amul ci baadolo yi fu mën nga ko fa la tarhabuna mulukal ardi qatibatan wala yanaalukumu min hukmihim dararu mm. yéen kay yéenay buur yi mm. buur yi dara mm. lu may daje yéen jox leen ngeen dem rek yéen kay yéenay yéen a fi dàqale waaw buur yi sequñu ak yéen dara lu may daje jox leen ngeen dem rek waaw la tarhabuna mulukal ardi qatibatan wala yanaalukumu min hukmihim dararu rek mooy seen mbir yéen kay yéenay buur yi dëgg Cheikh Najib Marwa Najib Marwa sànq iraqi sànq yu boobu. Mm. mooy ñaar mooy tagg weyaankat yi. Mm. ci benn xasida mu ne gisagul kenn taggaleen. Mm. mu ne mu ne mu ne da leen di tagg taqarruban ilallahi. loolu da wax na loolu da wax na ko ca dégg loolu da wax na ko ca. ne mbooleem bindee fi yàlla yi. yéen rek yéen a ci mën a dox ci kaw buum de. ah waxal si waakum. bi xalqillahi min ahadin mm. yawman alal masi fawqal hab habli mm. yaqtadiru yéen rek yéen a ko man mm. ah, karamatun xassakum bari samai biha bi misliha fi biladillahi yuftaxaru <laughs> loolu la wax loolu la wax dégg nga waaw ah, nee de yéen a yam yéen ay buuri parce que dara lu may jox rek la tarhabuuna du ngeen wekk mulukal ardi qatibatan wala yanalukum du leen jot dararun genn lor min hukmihim hmm. ala tarhabuna mulukal ardi qatibatan hmm. wala yanalukum min hukmihim dararu hmm. <laughs> gis ko baax baax kaanat nekk na mu almatjara di yaxantu alladi yaxantu goo xam nan laye bóoru du mu lamb man hala tey naanu waay xam ne du mu wal misbaaxa tey lamp alladi lamp boo xam ne yan soo dana juumoo ilay jëm cam al jumhuru jumhur mbooloo mi waya sax te dana leerloo bii jëm al hom yu way gumbo yi wala hor ak way fatt yi hom yu laa ko teg hom yu wa nekk na ahluha ñoñam ansa qabilin dëggan cay teddi giir waa sant tey jii leen tey gën jaay texee maas mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo tànn métier mii mm-hmm. nit ñi ñoo ci ëpp teraanga mm-hmm. ñoo ci ëpp noflaay ñoo ci gën a am xel mu dal wa kaana nekk na ahluha ñooñ métier mi ans la xabii leen di gën jaay teddi giir waa sant tey jii leen tey gën jaay texee maas la yarhaquhum du leen héeg du leen dikkal masu xayfin laal ak njeng déedéet toñkat bu leen di war a ci luñ moom mm. loolu amuñu ko mm. ah la yarhaquhum du leen yeeg du leen dikkal mm. masu xayfin laal ak njeng déedéet tooñkat bu leen di toñ di leen jéem a koñe nangam ñoo ko moom bañ bañ ne du leen ko jox histoire yi ngay dégg ci diggante liggéeykat yi liggéeylukat yi doo ko dégg ci métier mi déedéet wala yuqliquhum te du leen tiital sallu sayfin boccik jaasi mm. xeexoo yi ngay dégg ni ci diggante liggéeylukat yi liggéeykat yi mm. doo ko dégg ci ñoom mm. wala yax saw na duñu ragal xomata la feneen dangati aji mat déedéet xalaatuñ kenn ku leen xeex ci seen liggéey wala yee diinoona duñu torox lul nag li daanin ñaal aji suufe aji jegeñ wala soo feneen du ca gën aji sori ku leen jege ña ku leen sori daal lañ xemale képp kuñ bëgg ci yow dara dañ la ko wax te ci njàmbaar lañ la koy waxe a ah, wala ye dinoona duñu toroxlu li daan ñaal aji jege wala soiten du càggin aji sori wala yarhaboona duñu wek eh, même man ci ku xam ne baraka melax na waraada wala ku dënnu affaire buur buy ñàngal ak kilifa guy ñàngal yooyu ñoom seen yoon nekku ci wala yax filoona duñu faale bi man ci ko xam ne xaama jóg na mm. wa qaada ak ku jik mm. sàllaaw borom daraja ji kawe jeg borom daraja ji suufe ji mm. moom lañ xemale de andiyatuhum seeni pénc munasahatun lu ñu sellal la boo demee ci seeni barabi jataay da fekk ne yi ngay ragal ci yenn jataay doo ko fa fekk wa qulubuhum seeni xol murfahatun lu ñu noppal la te itam seeni xol dafa fiix ndax xelaatuñ xeex ak kenn wa tuamuhum seeni seeni seeni wërsëg wa tuamuhum seeni ñam mooy seeni wërsëg muajjalatun lu ñu gaawee la wa seeni waxtu xurrun way rafet la muhajjala way yu ñu lu ñu jébbal la lu ñu taaral la tahjil mooy weex ba weex boobu di nekk ci kanam ji fas fasu jàkkeer bu ko amee day rafet fasu xonq bu ko amee day rafet mooy tahjil ay na ma saqatoo fu ñu mën a rob laqatoo ñu far ñoom fu ñu mën a demit jëlee fa dara ay na ma saqatoo fu ñu mën a rob laqatoo ñu rob rek waaye su man xaratoo fu ñu mën a tabbi a xarato ñu xolle rek la yettaxidoona den ñuy jàpp aw taanan ay dëkk ñoom amuñ fu ñuy jàpp ne mooy seen dëkk fu ñu mën a amee dara rek la ñuy nekk wala yettaxoona duñu ragal sultaanan benn buur te itam xalaatuñ buur bu leen di hmm. wala yem taa soona du ci li nga xam ne tax doo dana mu xëy hmm. ximaasan da way hmm. te dana gont bitaanan da way regg bi sallallahu alayhi wa sallam dafa law tawakkaltum ala llahi xaqa la rasaqakum kama yarzuqu tayr su fekkoon da ngeen di wëkkiirlu ci yàlla mm. dëgg-dëgg wëkkiirlum mm. kon dana leen wartagal mm. ni may wartagalee njanaaw yi tax doo ximaasan wataroofu bitaanan mu ne picc xamul sàq xamul poos xamul lenn xamul compte banque xamul lenn lenn lenn waaye bu xëyee xiifit bu ngoonee mu suur waaw waaw bisimilah xamul sàq de. xamul hmm. magasin de. xamul hmm. compte banque de. xamul hmm. dara dara dara dara. waaye bu xëyee xiifin nag. balaa ngoon rek mu suur. man ñoom na xamul yooyu. waaye ku ci xëy xiifin balaa ngoon rek nga suur. waaw law tawakkaltum ala llahi xaqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayra. taxdu ximaasan aw taruhu bitaana. noonu la ñëwee ci hadis. man ñoom ñi météo météo mi. sori wuñu picc yooyu wala tuuti moo de wala yem taa soona du ñu jàqeeku amma lu xam ne tax doo dana mu xëy ximaasan de xiif wa sarofu te ñuy gontu bi taanan de way ko métier mi laa tànn fa qaala lahu fa qaala abu saydin doom ji ne ko yaa abati e yow sama baay laqad sadaxta dëggal nga de fii ci li nga xam ne tax du tudd nga ah wax nga waxi mag de hmm. wax ji ñor na de hmm. walakin naka li fi nekk yow nag hmm. ala tax ta dangaa hub comment fa tax te hub te hub bi waaye na xaw nga mag ak gune ah dañoo xamut xel ni nga waxee nag mag moo ko mën a dégg dëgg dëgg dafa defa leer ak man waaw ah. laqad sadaqta dëggal nga fii ci li nga xam ne tax te tudd nga ko walakin naka a fi nekk yow la tax te hub nga wama fa tax te hubbi wuloo fa bayin béralal lii ñaal ma kay fa axtatif naka lay wittee su ma demee ba soobu ci naka laa koy doxale ba am ci koom laa bëgg nga waxal ma wa min ay na ak ci fan tuukalu la defi lekke alkatifu pëdëk yoon la am boo ko bëgg lekk boo jaarut ci yoon wi da nga ko yéex a jekku torop mu mën a boo xamee yoon la te boo jaarul ci yoon jafe gi ta nga dal laaj ci ngay waxee ne min ayna tuukalul kati fa qaala abu saydi ne ko yaa bu ne yow sama ndoom inal irtikaada gaaw daal baabu haa mooy buntam de ah yàkkamti de baax na ca de rubbama fata qawman ba'du amrihimi min attaraxi wa kaana ra'yu law ajilu ma rubbama faata qawman ba'du amrihimi min at-tarahi wa kaana ra'yu law ajilu léeg-léeg xam lu la rëcc te ñàkk a jóg waxtu wa nga war a jóg rek moo mu rëcc la bu baax a baax mais ci mi daal waxtu yu soxla nga jóg bu jotee bala yeeti lenn na nga jóg rek wana saata ca wartande jilbaha mooy jilbaabuha mooy koddaayam day mm. itam koy met ku ku ci liggéey mm. da nga war a sawar bu baax a baax a baax mm. wal fitnata xel misbaabuha mooy lampam nga xam fooy jaar ni ñi nag wal xihaata wow xar kanam ndég ñàkk kerta mooy dëgër bopp si laawaha mooy ngànnaayam nga bañ doon ku neexanab kon ñu jàng lii lii métier mu nekk soxla nag waaw mu mën a rek soxla na teel a jóg mm. jëm ci ca ba mu bëggee nga jóg mm. soxla na cawar sànde mm. soxla na xam yoonam soxla na nga am dogu du doog kum neex rek mu yox yoxi loola mais mu na rek soxla na lii ah inal irtikaada gaaw baabu haa muy buntam waa teel a jóg ca waxtu wañ war a teel a saata cawar tànde jil baabu haa muy koddayam naka noonu itam boo ca nekkee nekkee ca sawara góorgóorlu wal fitnata xel mislawha mooy lampam mm. xam itam fi jaar mm. fi ngay jaar ñi ngi ko séqal mm. wal xihaata waw xar kanam ngir ñàkk kersa mooy dëgër bopp si lawha mooy ngànnaayam baax na boobu léegi nag ay dénkaane moo ci topp nag waaw kana jàngoon nañ ne dañu ne mooy xalo gi dawkat mooy doomi dawkat yu ndaw yi mm. wa asra mm. te itam nekkal de dàqa rañaan mm. min jundubin ci njéeréer xeetu njéeréer la te it ma nga ñeme guddi wa ansata te gën a sawar min sabi muqmirin ci koj biir gu nekk ci guddi weer a wa te gën sawar min babi muxmirin ci koj biir ak guddi gu am weer mm. nga gën a sawar koj biir gu ci leer gu ndaw mm. la ta te nga bëri wax nag mm. nga gën a bëri wax min si bin ci till muta nammirin guraaji tene tene lu te itam na nga doon coow kan nekkal ku xum waqadaa na ngay koccee zanda jëddi ka doju béyu sa muut bi jiddi ka ci sa farlu sa warsak de bu wutee góorgóorlu rahmatullahi taltamisu sababa rahmatullahi taltamisu taltamisu sababa alo Cheikh Ahmad Tijaani wax mu ne yërmande yàlla day sàkku sabab rahmatullahi taltamisu sababa jëgu baax a baax waqadax na nga kottee na nga koccee zanda jaddika bi jiddika ci sa farlu mm. waqaraa na ngay fëggee mm. baabaraa yi ka buntab sa caawo mm. yi ka ci sa liggéey li nga bëgg da nga loo ci góor góorlu sama borom nee na yaxtasu bi rahmatihi ma yasa mooy ku ko neex lay jox mm. waaye nee na inna rahmatallahi qaribum min al muhsinin mm. mu ne sàllaaw daal ñu rafetal mm. ñoom de yërmande yàlla jege na leen te ci misaal bu tawee ku neex yàlla rek mooy am nawet de waaye nag kare am nawet te ñay bay nga koy fekk de <laughs> loolu waaw waaw ku neex yàlla mooy am nawet waaye ñaar nag kay am nawet nag te ña bayoon lay bokk rek noonu <laughs> la demee rek dégg moo ñu ko sàggane du ñu ko sàggane du waqaraa na nga fëggee mm. baabaran yi ka bunta sa caawa mm. bisan yi ka ci sa mm. wajum na nga dagg kulla fa jin bépp mbedd te itam na bu ma fenn foo ragal a jaar walij na nga soobu kulla lu jin bépp lugg bépp lëgg bépp lëgg wanta jante na nga forlu kulla rawdin bépp dër waal xite na nga yoor dal wa kasabaak ila kulli hawdin jëm ci bépp bépp mbalka wala bépp déeg mbalka mu ne jëm ci déeg bu ne mbalka bu ne mm. li daal fu ne daal na fa sa tànk xàgg mm. fu ne na fa sa làmmeñ mm. wala tas am te de yoo xat attala ba dem ba ca kanam nga yoo xat gedd ba ko def wala tamal la tegul yokkat adda aba coono wala nga yëg ne sonn nga nga dal de daggale yàlli loolu itam bu ko def faqad kaana nekkoon na mm. maktuban de lu ñu bind mm. ala hasa seyxina jeetu suñu kilifa gi saasa mm. suñ góor gu magga saasa dañoo bindoon ci xeetam wax ne man talaba jalab wa man jala naal man talaba kusakunam jalabo mu bij ku dara moom ñaare boo ko defee dana am loo xam wa man jaala ku wëndeelu na naa la mu am ku génne fokk am loo dajeel waaw man talaba ku sàkku na ko jala ba mu bijji waaw bëgg dara de wut fokk si am loo am wa man jaala ku wëndeelu na naa la mu am wa iyaaka maa ngi lay wattande ko loo wal kasala ak tayal bul nangoo def tayal mukk muy sa jikko dafay tardeel nit rek fa inna hoo naka tayal hmm. on waa nun nu hoo si mooy adresse u gaaf yi walla boo sawil buusi tey koddayal borom weñ suyi min xasee ba ne diw fa tayal bu dee ku ñàkk ga kanam la jëm de hmm. amul dellu gannaaw de hmm. ci dañ ko wax ñu ne ñetti mbir dellu gannaaw ñàkk bu waa ndeeg tayal sàllaaw du du jëm amul dellu gannaaw de mm. réer bu àndeeg rëy mm. amul dellu gannaaw de kanam rek la jëm de mm. di bu àndeeg mage amul dellu gannaaw de kanam rek la jëm kanam la jëm kanam la jëm de ah. way yaaka maa ngi lay wattande ko lo wal kasala ak tayal fa inna ho naka tayal on wanun nu ho sumay adresse u gaafi wala boo sawil buus tey ko day borom weñ suyi wa miftaaxul matrabati tey caabi ñàkk wala xawul maxtabati tey gélém rattak yaddange mooy luy jur yaddange la wa siimatul ajasati tey jikkoy way lotti yi aljahalati ñu way réer wa sinsinatul wukalati ak jikkoy way baxeelu yi ak tukkalati ñu way baxeelu mooy ñu way lott wa mastaara nemmut alhansala lem man ixtaara ku tànn na alkasala lem kay boo ko bëgg a génne da nga am njàmbaar ak jàng ko ante yëmb wala man koo xam istawta a lal na mu raxata nof lay xam dara kay soo ko bëggee da ngay nangoo sonn waaye boo defee nof lay muy <coughs> raxata tënk mm. man koo xam istawta jàpp na lal mm. raxata noflay waa lay te maa ngi lay dénk mm. bil iqdaami ci song na nga ñemee jël engagement ci ku ne ak ci lu ne donte ci gaynde la ndax métier mi loolu la lay fa inna jaraatal janaan naka njàmbara xol tuntiqu dana mu tuddloo al lisaana làmmiñ Mm. nit dafay am fitu wax mm. dora man wax la mm. mu wax te wax la ànd watul lépp te dana mu boyal alxenaana gopp nit dafay am jàmbaara xol dora man am fu mu bëgg àgg kenn du ko kalum àgg wa bi haa ci moom tudraku la dee bi jotee alxudwatu xejju dina ko baax a baax am na cër yoo gis nit da ci jàmbaar bu baax a baax ci walanteeru xam ko ci la koy xamee watum la ko te ci la defi moomee asar watu koom te itam bari na koom goo gisee nit ci góorgóorlu la ko xamee kama annal xawara ni nga xamee ne mooy yomba yox yoxi sin wul kasali mbokkam tayar rek wa sababul fasali te mbokkam ragal la échec mm. te day jur ya échec rek. Mm. wa saatun te sabab la ci yéex lil amali ñaar lëggéey. Mm. wa mahyabatun te sabab la ci sooy lil amali ñaar yaakaar. nit warul bindoo heure bu ne rek muy dellu gannaaw lu mu engagé rek lu tuuti rek tax ko dellu gannaaw. loolu kenn waru ko nangu. la akrahu taanata najla. qad sufiat. birafqatin min nibalin ayunin nujuli wala ahabu sifaha albida tusiduni billamhi min xalalil astari walkilali wala uxillu bixiflanin tuxasiluni walaw dahatni usudul xiili bilxiyali mu ne jam-jam yu xóot yuñ may jam waaye su ma ca bàyyee koo bëri yu neex lay jàkkaarloo mm. jam-jam yooye du ma yàqal bëri ya <coughs> dana jam ko ante jam-jam ya ba romb ko janoog mm. wala su ma ca dee mm. ne ci yoonu tekki laa dee waaw coono boo xam ne ci yoonu teddaanga laa koy sonnee coono boo ba ñu ma koy sonn waaw ndax bu jeexee rek teddaanga dikk te su ma ca desee itam danaa ci lu jar dee mooy la akrahu taanata najla qad sufiat birafqatin min nibalil ayunin nujuli gis nga bu baax a baax wala topp mbir topp mbir topp mbir ba nga xam ne boo muñoon tuuti rek mu sotti waaw boo muñoon tuuti rek mu sotti seetlu bu baax a baax a baax seetlu topp mbir maa xam ne fi ne sonn na ci boo muñoon tuuti rek mu sotti mm. ñu ragal loola nga ba mais mm. wala ahabu sifahal biida mm. tusaiduni bil lamhi min xalalil astari wal mu ne jaasi may cat waaye maa ngi seen nag korxondoo li rido ah loolu kay nañ ma cat sama jàll rek gannaaw dox naa bay seen rido yi ay jaasi may tàll rek rek may ragal déedéet ñoom kay naa demee seexu ñu jàtt waaw mm-hmm. ah. léeg-léeg du léeg-léeg day def rek mm-hmm. mm-hmm. te sonnoon na ba nga ne bu yoon muñ tuuti rek njëriñ dana loolu mu du ko nangu wala ahabu sifahal biida tusaduni bi lamhi min xalalil astaari wal kilali ah, dem ba nga xam ne seen seen parandoli ridu yaa ngi xam ca fa ma jëm ñii ma ñoo di ay jaasi yu mirax mirax may ragal di taxaw naa def rek lu ma ci fekk ma jël waaw naa ragal de parce que maa seen bunt yi la ñu naan ma doo dugg di ma boccel ay jaasi gis nga ko bu baax a baax wala uxillu bi xislaanin tuxasiluni walaw daxaat ni usodul xiyili bil xiyali mooy su ma xasee ba xàgg nag kenn du tere taw sooy boo gaynde yëmmu sooy boo gaynde demee ne naa kenn du ma tere topp mm. waaw mu ne ma sonn mbir mm. ba topp taw ko tere nga def tere moo mm. kenn du ko taxate wacce waaw kenn du ko taxate wacce waaw sonn ci mbir maa xam ne fi ne ni topp mu ne kenn du ko ragal la bu wacc ma mu ne gannaaw wax dina kenn du ma toog këccalante ñoom kenn du ma ko tee def mm. walaw dahaat ni usoodul xiili mm. bil xiili soo boo gaynde yi wane lu ne mm. waaw ñett yu am solo <laughs> nu solo waaw nu solo waaw ñett yu am solo soxla yi moom góor la de waaw dina ci taarix xam tarjama ci wafayaatul ayaan ba ñu indi mahaasinu sinar yi andi na fa lam yi su najim bam bam àgg dama wafayaatul ayaan waam waam waa mbaaw am na ay zaman boo ca demee mooy taarixu nu xilig kaan boo ca tarjama tuura yi boo yow mahasinu genre yi ali na bala mi dun ajab boobule gis nga ku baax gis nga ku baax moo tax wali saa ngir lii man jasara ay sar wa man haba man jasara ku jàmbaar na hmm. ay sara mu xoomal hmm. waaye wa man xaaba ku ragal na hmm. xaaba mu perte seen ku baax a mu ne mbir du mbir laaju nekk nekk lu nit lim nekk da dajaa nekk nekk dëgg-dëggal su ma bu topp da nga génn yaa bu ne yow sama ndoom fii bu abi sajirin seen ku baax sinjalu kakataar. Mm-hmm. sinjalu gaynde. Mm-hmm. sinjalu gaynde. déedéet njëlu njëlu baaxañ lay. su ma sopp na génn yaa bane yaa sama ndaw fii bu kóori abi saajirin ci teel a xëy ak baaxañ. na nga doon ko ñeme teel a xëy mm. yéex a jóg dafa bëri tardeel mm. innal huwayna xibbuha wahnun fa jiddu taxmadu suura dégg mm. wa jaraat abil haris ak njàmbaar ak gaynde wa hasamati abi xurrata ak takku kakata ku waya waya way way gim way doxam bu yéex boobule dana cee dal ci bànqaas ak garab ak bu gudd gudd. Mm. dana ko topp ba mu jeex. dana ko topp ba mu jeex naa bu dalee ci bànqaas bu ko dara kalu. Mm. dana ko topp ba mu jeex du ko nekk madrabul masal bi ci takk. dégg nga mm. baax a baax. dégg bu baax a baax. waaw ne xas na ko topp. nga bàyyi fekk cat la de. waaw moom itam boo xasee ba àggaat seen biir. danga ko topp ba mu sotti. waaw. waxat li abi jandata mm-hmm. ak xuruj till mm-hmm. nga mën a xuruj baax comme till mm-hmm. dina ko baax a baax waxit si abi oqbata ak xiita xiira xinziir xam nga ni mu bëggee luy teggi dara waaw mu ne kuy wuyaanurul el dara xam nga mbaam ko du el dara wa nasaati abi wasaabin ak ca wattande koj biir wa mikri wa makri abil husayn mm. ak pexem kund ku bari pexem mm. wa sabri abi ayuba mm. ak muñ ak gélem wa talattufi abi xasawaana ak yërëmtalub janaab abu xasawaan mooy janaab wa talawuni abi barakis ak mellohut picc mooy abu barakis yëpp daal ay maanaam mbir la yoo xam wahilati qasirin ak pexem qasir mm-hmm. xam nga nan fexeele woon ci saba kii amru nu adi mm-hmm. bam mën a fayu darete jotaymatun awrat ci saba mm-hmm. wadaay wadaay amrin ak jommaleeg amru paññeeku ci muus torop torop torop amru nu hindi amru billahi defal ko benn kaa boo seetee ci si dana ci wax walut bi ak ñëwet ak saabi saabi yu aalimul iraq tu doon nañ ko ci maqaama tibrisiya hmm. wala maxfuusaat yu bo yu yu ràññeeku yi hmm. waxtimaalil ahnaf yi hmm. ak lewet ak ahnaf xenu tooñ ak ahnaf ku lewet a lewet la woon madrabul masali la ci mën a mos nay ànd ak nit nit ki dafa xas ñoom ñaar ci yoon bi mm-hmm. ana waxu ko dara mm-hmm. ñu dem bay jub dëkk ba mm-hmm. ana taxaw waaye na ko looy taxaw mu ne ko dama bëgg nga àggali li ngay wax ñu door a àgg ndax li ngay wax nii soo ko waxee kër ga dañ la dóor te bëgguma kenn def la dara ndég man ndax kilifa dëgg la ma gis nga bu baax mos naa toog ñu indil ko ñaari nit. Hmm. kenn ki kuñ rey la kenn kutum la. Hmm. kiñ kutum moo rey ki dee. Hmm. ñaar ñi kenn ki mbokkam la. kenn ki doomam la. ba mu leen xoolee gis kiñ rey. gis kiñ kutum. dafa génne dee ay kiñ rey. wax ne nañ ko jox ndeem. wax ne tekki leen kutum mu dem yoon. mu ne aqulu lin nafsi hmm. tasbiran wa taasiyatan hmm. ihda yadayya asabatni wa lam hmm. mu ne mbir mi li ma cee wax mooy suma loxo moo ma gaañ te tayu aqulu lin nafsi tasbiran wa taasiyatan ihda yadayya asabatni wa lam turidi seetlu bu baax a baax kee moo koy bind aqulu linnafsi tasbiran wa taaziyatan ihda yadayya asabatni wa lam turidi linnafsi ñaari lam la aqulu linnafsi bind nga ko ihda yadayya asabatni wa lam turidi aqulu linnafsi tahbiran wa taasiyatan ida yadaya asabatni wa lam turidi kilahuma xalafun an faqadi saahibihi mu ne ñoom ñaar ku fi newul rek kajar war na koo mën a wut kilahuma xalafun an faqadi saahibihi hada axi hiina adoohu wasa waladi hada axi hiina adoohu wasa waladi ku lewet a lewet la te lu baax lu bëri ma na ko supporté ci nit aqulu lin nafsi tasbiran wa tansiyatan ihda yadayya asabatni wa lam turidi yaa ngi may dégg yaa di jàng kilahuma xalafun an faqdi sahibihi mm. hada axi xiina adoohu wa da waladi mm. ku bëri ay nawaadir la ak i tarayi mm. ci wàllu lewet ku bu bëri lela wa fitnati iyaasin ak xelam iyaas nga xamee ñaw ak iyaas nga mm. iyaas ku xereña ku joge joge la xoon mm. te daloon tontu torop torop torop mm. daanaka fuqahaa yi dañoo dañoo bañ fal qaadi yu joge te daanaka li tax ñi ko bañ ci moom la fàqee ko dañ ko faloon qaadi busra léegoo léegaat muy xatte yoo muy xatte xatte yoo xam ne day teggi saayiru sëri xatte rek jëfandikoo xaral ak boppam rek ba ne lii la te la may wax kenn du ko mën a di kenn kenn du ko mën a di Abdul Malik ibn Marwan da koo mos a fekk Misra moom Iyaas mu ngi toog ay magam ko wër muy leen jàngal tawhid ay borom bi jaaw duñ toppee gune gi ñoo ñàkk oto bi oto lu mel ni daal duñ toppee gune gi ñoo ñàkk fulla wax yaas na ko ñaata at nga xam mu ne ko man li ma am si at mooy ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga xare bi Yamaama la waajaloon bala mu jaay dem yàlla dogal mu génn àddina te noose woon ne xare ba mm. su mu génne àddina ba jaayanteeg Abu Bakrin mm. Abu Bakrin wéeli seen boobu mm. la njëkk a yëngat ci politique ci siyaasa léegi nag xare boobu bu mu koy tëral moom yonente bi Usaama ibnu Zaydin ibnu Haarisa sax moom la defoon muy amirul jaysi muy bi mu jiitoon mag ñi topp ko boo nag mag ñi ko toppoon Abu Bakrin ci la bokkoon Omar ci la bokkoon Abubakar Usaamatu moom mu ne de yonent bi jiitu woon hmm. mag ñu topp ko bokkoon te mag ña ko topp Abubakar Umar hmm. la ma maale woon ci at boobu loolu la amaale hmm. mooy fukki at ak juróom-ñaar la amaale booba parce que ma ne xam ne xale bi daal bu yàggee de mu bàyyi ko fa bàyyi ko fa gannaaw bi mu am fi histoire ak nit ki ñu kalame hante mm. bañ demee ca mahkama ba mm. xaadi ji daldi ñàng lool iyaas daldi ñàng toog mm. xaadi ji ne ko ki ngay waxat nii nag mag la ki nga ki nga jox histoire bi mag la ma <coughs> waaw waaw ne moom ak ma dëgg mu ñu fi fi amul ay fi ay ki ak dëgg ku ma bàyyi sa wax ji mu ne ko layoo moo ma fi indi su ma noppee kan ma wax sama lay layoo moo fi indi loolu du wax loolu du wax dafa mu ma ni wax xaadi ñu ne ko defal ko lim soo ko deful dama la sonal soo ko deful dama mm. la mm. sonal mm. <laughs> ah soo ko deful dama la sonal waaw soo ko deful dama la sonal li nga ko bu baax a baax dañoo mos di seenu weer hmm. bokk ci mag ñi koy seenu anas ibnu malik xadimu rasuli sallallahu alayhi wa sallam hmm. anas mu ngi màggata ba xef yëpp dañoo bi jàpp hmm. ñii seenu weer wi anas ni seen na weer moom moo fi gën a a mujj gis weer wi suba mu njëkk a gis weer wi te mënu ko woon kenn kenn mu gis ko xam nga day xaw ak itam koo xam ne dund na ci ànd ak yonent bi ba yonent bi gërëm ko mm. kooku nu muy xajade ci mbóosóor mm, mm. waxam du neex a wéddi sënam waaw waaw te ana dog na ni gis na ko waaye nag mënu wan kenn ba mu gis ko yaa daf ko ñëwee kanam teen ko gis benn xeeb bu sëgg mu rocce xeeb bi ne ko ana weer yow sa koor bi la kawar bi la kawar bi la xaw ki nit ku yéeme yéeme la loolu nag daf ko demee woon ba bi ñu ko falee xaadi léegoo léegaan nag muy xatte xatte yoo xam ne day teggi zahiru sariyaat yi fële rek jëfandikoo xaral ak boppam rek dogal li muy dogal te sariyaat il faut dañ ko war te kenn du man dara kenn du man dara waaw ay gars yoo xam ne dañoo dugg ci ndox di sangu mm. fekk ñetti mbàjj lañ xamee mm. bay génnee coow am kii ne moom mbaji gu xonq gi hmm. kii ne déedéet hmm. bañ kalame ante ji hmm. bañ kalame ante bu ñëw yaas da wax ne wutal ma fóore jaral mu xaw kenn ñëw mu ne ko sëggal mu sëgg mu ne ci kawar gi di jaral di jaral ba yeggalam ci mbiri mbaj ji di génn loolu lay xool xool ko ba yegg mu ne ko yow gu weex gi moom jaral gu weex gi te dem xool ak keneen. léegi yow yaa moom bii la yow yaa moom bii la. yooyu doo ko daan def sax àtte yooyu doo ko daan def dégg nga. gis nañ ko bu baax a baax. gis nañ ko bu baax a baax. xam nga Fadima Diakhaté loolu léegoo léegaat mu def. léegoo léegaat mu def. ah benn waay boo xam ne dafa romb nag bu xam ne nag bi mu ko rendi wut du baax. dafay mel ni borom ñàkk bi dafa feebar mu daal di ko rendil borom pour bu ko borom ñàkk mm. dem na ko san na ko fekk naa ko borom sàngam mu ngi jekkatoon waaye rendi naa ko mm. daa moyen mu metti xale ko tàpp ba toog ana borom ana diw mu ne ko maa ngi yaa mu nooy mu ne ko dama rendi ma naw ko <laughs> ah nag yi kenn mu ne ko rendi mu ne kon amuloo woon nag kenn la fay dara demal amuloo <laughs> nag dara demal <laughs> waaw kon mu ngi doon nekk lii tam benn waay boo xam fekk seen kër ay eh, naka jekk boromi nag lañ moom nag mu newoon ci nag yi ba hmm. kii nag mi jànge ba ñëw indi xam-xam nag loolu mu xaw ko jom lu mu ne dafay jàngi hmm. mu fekk daal ñu sol dénk ko nag yi hmm. nag dama ko nga teyal moom sama jànge ba ñëw mu ne ma joxoon ma ndar mu kalaame ma ci Xaadim Jaxate Xaadim lañ ko doon may kuy sa seede mu ne ko yàlla ak yonent bi mu ne ko ah doy nañu seede de waaye mënuñu cee dëgg àttan masala na tontu bi ni mu rafetee doy nañu seede de waaye mënuñu cee dëgg àttan ree boo Sëriñ Tuuba yëg mbir mi yaa boobu mooy boobu mu ngi jaxasoo xaab yi bi mu laajee waa ji kuy sa seede waa ji ne ko yàlla ak yonent mu ne ko ñooñu doy nañ mu ne ko ana foofu ko joxe xoon mu ne ko barab sàngam mu ne ko mandarga booba xam ni mu ne ko ron garab ak naan dóob ci laa ko joxoon bu ñëwoon naan dóob mu danga dem nga wuti ca garab ga indi ñu seet ba xam ba xam nga dëggal ne waa ji dem yéex a ñëw ñu toog toog ba ca kanam dem waa ji nag yàgg na parce que eh, buy naan dóob gama xam fiw ñëw <laughs> mu ne ko buy naan dóob gama xam fiw ñëw <laughs> ñu ko delloo ko aji nag delloo ko delloo ko ko waate yooyu nag iyaas moom la fi daan def yëfi jong yooyu nga xam ne dangaa jëfandikoo nax nit ki rek ba dugal ko rek ba dugal ko ba dugal ko yëfi waaw waaw ba fi mu ne homme de loi yi mu ngi ci ñoom moo tax bay wax ak ñoom waaye tey moo tax ñu masaxakal leen ba léegi loolu moo des mu ngi ci ñoom waaw Eh, mbir dana gaa ñu la enquête hmm. kii di ko waxee yow nii keneen di hmm. ko waxee yow nale hmm. keneen di ko waxee yow nale ba nga foog ne bokkuñ lu ñëw waaye yëpp leen rek la ñëw waaw moo tax ne waa fitnati iyaasin ak xelu iyaas wa majaanati abi nuwaasin ak bëri neen ak abu nuwaas changer bu ràññeeku bi xaritu janaan bi xaritu sàngara bi taggee na nu nekk watamay asan ba ak xemeem xemeem ak asan bu tammaa ku ne xam ne loolu ko toroxal ku ci bëri ay nawaadir la waxaridati abil ayna ak dal tont ak abul ayna mu ne fexe ni yëpp baaxal na boobu lisaan ci tëgg ak làmmiñ wax daax te na ngay wurujee bi sexril bayaan ci njeeber ak biral may wax ju fasaa wartat te na ngay sàkku na ngay gub ak soo xaja marsa xablal jala bi ca njëkkat bi ji bala ngaa jóg na nga xam foo de xaw bala ngay jóg na xam foo de xaw wartat na ngay sàkku mooy na nga gub ak soo xaja mooy fa ngay jaari xabla jële bi ca njëkkat bij ji wam tarita na ngay toxañ ak dara xenaat xabla xala bi ca njëkkaraat nit ki bala nga bëgg ci moom dara mm. da nga jiital masla mm. boo pare door koy woon sa bëgg-bëgg mm. waaw wam tari na nga na ngay toxañ addar xayenaat xablal xala bi ci njëkkarat mm. wasail te na ngay laaj mm. a rukbaana setti si mm. xablal muntaja ci njëkk forluwaay bala nga wax maa ngi dem dëkk sàngam wéyaani ñaani fa da nga laaj ña fa xam ñoom ñoo lay wax mu fa ñoom ñoo lay wax fa mbir ma gën a yombee fa mu gën a xoomee wa dammit te na ngay noyalal li jëm bi ka sa wàll xablal murtajan ci njëkk tëdd te itam ak lu mën a xew rek foo mën a dem te lu baax baax ak lang fay dox na nga fexe daal ba jiital masla bu xam ne mën na ko yombal bojaa gi wasat te na ngay daas basirata ka sa ji sa xol lil ayaafati ngir def sajdu tayri sajdu tayri arab yi dañ ko daan def su fekkee da ngaa bëgg a sóobu ci mbir da ngay jóg suba teel nga fexe dem mm. ci tàggam janaaw fëggu ko bu baax bu ba ba nga xam ne borom dana génn su génnee naaw xaw sa boolu ndeyjoor nga ne mbir mi dana baax su génne naaw xaw sa boru càmmoy mm. nga ne baaxut mm. loolu arab yi dañ ko daan def ci njëkk lislaam mm. waaye lislaam bëggu ko nag ak lu mën a daal na ngay liggéeyloo sa xel da bàyyi xel li am yaakaar ak li amul yaakaar waaw wasaas na ngay daas ba gëratakka sa ji sa xol li na yaa fa ti ngir yaa fa jaaj ji njanaaw waaye li mu bëgg a wax mooy del seet li am har li am li am li am yaakaar mm. <coughs> waaneem te na nga mm. sa sa gis sa mm. settantal sa gis lil xiyaafati ngir xeñtu xiyaafa ci mooy ak nit koo xam ne dañ koo gis bëgg a xam fu mu dëkk ñii seet ay mandarga yuñ mën a fu mu dëkk dafa aw nit ñoo xam ñoom lay seen liggéey lu mën a li nga nekk Mm. ah di ci liggéeyaloo sa xel. Mm. da xel li am yaakaar. Mm. ak li amul yaakaar. da xel li ànd ak gànd gu rafet xarbaan. ak li ànd ak li ànd ak li daal. wa inna man naka koo xam ne sadaqa dëggal na tawassumuhu setantalam. taala yàgg tabassumuhu muuñam. yu bëri ñaare boo ci jiitalee setantal. door caa dugg kontaan rek nga caa jëlee mm. doo ci dugg mukk ci suro mm. wa man at ku moy na firasatuhoo tollaleem mm. ab ta at yéex farisatuhoo lu ñu fàddam waaye yu bëree bëri soo ci jëfandikoo wu settantal ba dugg ca sa xam ko def ca man nga caa sonn te doo ci jëriñ wala wa man at ku moy na firasatuhoo tollaleem ab taat yéex bari sa tool lu ñu fàttan mm. na nga nekk yaa bu ne ya ay yow sama ndoom mm. xafifal kalli daaji xoyof ci diis mm. te itam nag na nga doon ku yomba doylu ku xoyof bul doon kuy teg nit ñi lu diis waa gi rek tege fa luñ manul saa su leen gisee rek jàpp lu manul loolu bu qalila dalli daaji néew ci reylu te itam nga nga sori daal melaw reylu waa daaji néew ci njegal nga nekk yaa bu ne yow sama ndoom xafifal kalli daaji hoyof ci diis qalila dalli daaji néew ci njegal daaji sib anil alli wali sunduli te itam bul nangu nit jox nga ne ko dolli xaani an di aji doyloo bi tël li ci taw bi misal nel li ci taw waami ku bëri le su la joxee lu tuuti gannaaw la la mën a jox da ngaa doyloo la nga mën a am ci la joxee lu tuuti da nga xam nga mën a am ci moom nga doyloo ko xaani an nga di aji doyloo bi tël li ci taw bi misal nel li ci taw waami waxasim te na ngay màggal waqan xaqiiri dalak aji xeebu mooy mm. mayek aji xeebu mm. nit koo xam ne moom xamul daraje ci ñi mm. xaj na ñeen ñi teguñ ko fenn waaye defal na la tiranga da ngay xam ne la nga soxla ci kiñ teg fenn moom ji réyal ko waskur te na ngay sant ala naqiiri ci kem naqiir te lu la nit defal lum tuuti tuuti na ko ci sant bu wala taqanat te bul naagu inde mm. rëddi fa delloo mm. laaj nit mu delloo la jox la ngant mm. bu mu tax nga ne kii fa koy ba amul njëriñ wala tastafin te bul soril rabsa kuñ naan dafa dëhër kenn mën da jële ci moom dara bu mu tax nga ne du mu ko laaj yow gannaaw laaj ci ngay wéy demal rek bu sa war rek newee ci moom balde naagu min rahillah ci yërmande yàlla mm. innahu naka luy mbir mm. lay asudu min rahillah ci yërmande yàlla mm. innal illal qawmu ndare nit ñi alkaafiroona ñu de way weddi defe ne nag daal boo sonnee doo jëriñ loolu bu ko defe ne boo sonnee doo jëriñ loolu bu ko nam way saa loo feela bayna darratin ci diggante sarra muy lu tuuti man xuudatin bare bu ñu teewal mm. wa durratin ak wurus mawoodatin bare bu ñu dale mm. fa mil na nga jàng ila danq jëm ci may gi teew mm. wa fadil te nga gënal alyawma tey alal xaddi ci àlla suñ la wanee ne la boo muñee ba sàngam dee dana xoom waaye su fekkee tey de lii rek fi ne kon da nga wax nañ jox li fi nekk tey rek moo gën li teew te tuuti mm. loolu nekk na ci sa loxo mm. waaye liñ digge tam rëy digge rekk la mm. xamula la jaa xew waaw wa ida xuyyirta bu tànn loo feela bayna darratin ci diggante sarra muy lu tuuti man xuudatin ba de bu ñu teewal waaye lu mën a xew léegi lañ la koo jox wa ak wurus muy lu rëy ma xoodatin ba de bu ñu dali waaye luñ la dig rekk la famil na nga jàng ila naqadi jëm ci may gi teew mm-hmm. wa fadil te na nga gënal alyawma tey alal xadi ci ëllëg mm-hmm. fa inna li taaxiri ñaal na yéexee afaatun ay gàkk mm-hmm. la bu baax a baax yooyu rek dafa am nu muy demee yaakaar ji fa dajee am a li taaxiri ñaal na yéexee afaatun ay gàkk walil asaimi ñaal na dogu yi mm. badawatoon ay feeñ léeg-léeg nit danay pas-pas ci dara mm. dem dem ba ca benen beneen gis-gisam sax ko ca génn mm. yëpp dafay am waaw nit danay fasoo dara sax te ba nga koy wax dem ba ca kanam beneen gis-gis sax ko ca génn yëpp liñ la dig loolu mën na koo kan walil xadaati ñaal na dëhër yi muhaqibatun ay way delloo nit mën na la dig dara sax mm. am ca dem ba ca kanam mm. am lu tax du ko mën a teeweele mm. salaamaaleykum walil hadaati ñaal na dale yi muaqibatun ay wéy delloo léeg nit dige dara am ca pas-pas torop sax waaye dem dem ba ca kanam sottal gëta ndax lam mënoon mu ko digee mënatu ko yëpp dafay am wa bayna ha nekk na ci diggante digge yi wa bayna nijaasi ak diggante teewal xaqabaatun ay xaqaba mooy ay montagne wa ayu xaqabaatin ak yu mu ci ay xaqab mu ne diggante am léegi ak muñal ba sàggam bokkut de bokkut de bokkut de mm. mu ne bokkut de mm. waaw waa lay ka mm. bi sabri ulil azmi ci muñ ak ulul te itam da nga war a nangoo muñ bu baax a baax ni ulul azmi doon muñee ulul azmi ñooy xiyarul mursalin ñooy tànne fi yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñoo gën ci mbindeef yàlla yi ki ci njëkk mooy yonent bi sallallahu alayhi wa moo ci gën keneen ki ci topp mooy suñu Ibrahim lim ci topp moo ci topp ci gën keneen ki ci topp mooy Muusa kalimullah mm-hmm. keneen ki ci topp mooy Nuux keneen ki ci topp mooy xesaruhullah hmm. ñeent ñu juróom ñooñu le hmm. ñooy ulul azmi hmm. wa ida xasna min annabiina misaqahum wa minka mooy yonent bi wa min nuuhin wa ibrahima wa musa wa isa bni maryam yo nga nañ daje xee ci aaya wala shar'a lakum min addiini ma wasa bihi nuuhan walladi awhayna ilayka mooy yonent bi an wasayna bi ibrahim wa musa wa isa an aqimu diina wala tatafarraqu fi ñun ñuy ulul azmi waaye niñ tegalee ci gën noonu la tegalee jalalu diini suyuti la wax nabiyuna afdalu bil idlaaqi min kulli maxluqin ala ittifaaqi yalihi ibrahimu summa muusa fa mm. nuuhu fa ruuhul karimu isa mm. wa hum ulul azmi mm. wa mursilul anaam fal anbiyaau fal malaaikatul kiram yaakaar naa wax na ko yaakaar naa wax na ko dégg nga wa alayka maa ngi lay dénk bi sabri ulil azmi ci muñ ak ulul azmi waril xisawil hasmi ak ndànku borom takku yi mm. na nga doon ku dal ku fonk def ndànk selum ku baax a baax mm. warafiqi rifqa mm. fi kullil umuri falam yandam rafiqun walam yasmumhu insan wajanib na ngay teer xurqal mm. ti jéggi euh, ndofak aji jéggi dayo teya aji jéggi dayo mm. selum baax a baax mm. ah, bala mbaaxa bu mu doon sa mbir lum la may rek fekk na xañ na la lu ko ëpp wala yaxu ran ka haddun jarrahu xaraqun fal xurqu hadamun wari qul mar i bunyan loola ca nekk <coughs> wajaanib na ngay teet xurqal mustatti jafe-jafe aji jéggi dayo mm-hmm. wa taxallaqta na ngay jikkohoo bil xuluqi ci jikko mm-hmm. asabti judaa ji yomb mm-hmm. na nga doon ko xam ne daal ku la xam na ci yow jikkoy nite wa qayyit te na ngay tënkee adarahima darami darami bi rabti ci takk li ngay da ko dajale wasub te na nga jaxasee albasla joxe bi dafti ci takk mm. te soo demee bay joxe hin nag mm. nga xam ne noo joxe bi de mm. wala tajal bal def yaddaka sa loxo maxlulatan muy lu ñu gëf ila honu mu jëm ci sa dox bal ni koo xam ne loxoom fa rek doo jëriñ kenn dara wala tasuda waaye bul tàllal loxo bi hin ko lal ba si géppal tàllal mm. ak bu yaa ngi pasar pasaree rek mm. loolu bu ko def mm. jën ku baax loxo doo joxe kooku nay la xame xala sàmm hormaam du ko pasar pasaree loolu tabdir la bayna tabdirin wa buxlin rutbatun wa kilaa hadayni indama qatal <laughs> na demee rek wa mata na ba waxtu wu beccengale bu bañee bi ka ci yow bala dun dëkk aw naa ba ka walla jot la fii ca dëkk ba kama dun soo nexee ci dëkk mel ni man la faa am jàmm la faa am faju xaajo fa butta na nga dagg minu dëkk ba amala ka sa melo dëkk dëkk ba dindi sa bëgg-bëgg waxrax te nga wëral an walis dëkk ba jamalaka sa gëlëm mm. ila naba bi karimin mm. mawtinun falahu mm. waraahu fi basitil ardi awtan fa xeyrul biladi gën ci dëkk yi maa mooy fi nga xam ne jamalaka rafetal na mu la wala tastasqilan na bal diislu arrihlata laxas affaire yi jóg dem barab hmm. yooyu ba ci am luy métteeg yow nof lay newu fii hmm. wala tagrahan na bul sib hmm. an nuqalata toxolu bawoo fii dem fële fa inna alama sariatina naka alami suñ sariat bi ñun ñun ñun saasaani yeyi suñ yoon bi ay kilifa waa cheikh asiratina tey ak magi suñuy geño mm-hmm. suñuy bokk mm-hmm. ñoom añ ma dajee nañ mm-hmm. ala annal harakata ci naka yëngatu barakatun barke la wa tarawatu cawartande suftajatun njëlbeenal kubéef la ñeen nit daal bu sawaree rek tàmbali am sens wa xeeb nañ ñoom alam sarihatina ala man ci ki nga xam ne saama dafa jortu ne mm. anna al xurbata tumaranke mm. kurbatun njàqare la mm. wa nuqalatu toxolu muslatun métital la ñu naan su fil asfaari nangami hawaayiq ñoom loolu xam ne ñoom daal li ñu ànd mooy laa taxarrab anil awtaani fi talabin hola wa saafir fa fil asfaari xamsu fawaidi tafarrujuhum min waktisaabum ayasatin wa ilmun wa aadaabun wa suhbatu majidi mu ne yooyu yëpp dafay amee ci tukki yëpp dafay amee ci tukki wasaraw xeeb nañ ala man ci ku xam ne saama jortu na ne anna al xurbata tumaranke kurbatun njàqare la wa nuqalata toxalu muslatun wa nuqalata toxalu muslatun métital la tuuti rek moo def waqaalu wax nañ ne hiya loolu temps la tu man sungale ko waaye koo xam ne la iftanaat doyloo na bir rasilati ci suufe rek wala diya te mu gërëm bir xasa bi ci tàndarma ju ñaaw rek wasoo kiilati ak ñaaw ak natt rek mu ne loolu ku ñu raw muy dabee làmmiñ rek moo koy wax waaw mu ne yooyu ku ñu muy dabee làmmiñam rek moo koy wax yooyu du waxu dara waaw mu ne loolu la ñu wax de nu mm. ñoo boo leen rawee mm. dañu jéem a dabee làmmiñ kese mm. waaw mu ne loolu ku ñu raw muy dabee làmmiñam rek moo koy wax du waxu dara waaw wa qaaloo wax nañ ne hiya loolu taxen la tuman mooy su sungale ko kay ku xam ne la rek wala di yette mu garam bil hasabi ci tànd ma ju ñaaw ko mm. soo yéen kiirati ak ñaaw ak natt rek mm. ah, ko des gannaaw di jéema dabee làmmeñam mm. kooku rek mooy wax yi waaw ah, mooy wax yi waaw ah, wax yi waaye kay ku bëgg a tekki kooku du gàllankoor nit ci lu tekkim nekk baax na ko nga xadul lewoo ñaal ko al asahet al asahet wal jiraba ak gafaka a léegi nag boo dogoo nag ci génn huti nag ba waaj ba say waaj ay hembata way daas maxta boo dogoo alal ixtirabi ci tumarang muy génn huti waa datta te nga xadul lewoo ñaal ko al asahet wal jiraba ak gafaka fa taxayyar na nga tànn hmm. al rafiqa xàndandoor hmm. al muset bu daa ji dimbale hmm. da ngay wut baax mu nekk sa wéttal ci yoon wi nekk sa ndimbal ndax lu xam solo ci dundam nit la man faataho wuddu axin salihin fa dalika al maxbuunu xaqal yaqiin dégg bu baax a baax waaw mu ne nit soo amul wuddu axin saalih hmm. naxu na hmm. man faatahu wuddu axin saalihin hmm. fa dalika al maxbuunu xaqal yaqin moo tax booy jog war nga koy wut min qabli an tusin day ci njëkk ngay yéega domo fa innal jaara naka dëkkandoor qabla daari nekk na ci njëkk tànn kër bala ngaa seet foo dal nanga koy dëkkal mm. wa rafiqa naka àndandoor mm. qabla tariqi nekk na ci soobu ci yoon njëkk na ci njëkk na nekk na ci njëkk soobu yoon mm. bala ngay tegu ci yoon nanga tànn koy àndal xudaha ilayka wasiyatan lam yusniha qabli ahad xarraa xaawiyatan xula saatil maani wa subat naqahtuha tanqiha man mahada nasihata wajtahat fa amal bima masaltuhu amal allabibi ahi rasad hatta yaqula annaasu hada siblu min zaka al asad siblu min zaka al asad mu ne ko kusaa jàpp ko ilayka jëm si yow wasiyatan mu réb dénkaane boo xam ne lam yoosia dénkaane wu ko mm. xabli ca njëkk sama mm. ahadun kenn mm. jëlal dénkaane la ak ay ndigal yoo xam ne ca maam ya ba léegi mosugoo dégg kenn ku ko dénkaane mosugoo dégg itam kenn ku ko dégg xutaa jàpp ko ilayka jëm ci yow wasiyatan muy dénkaane loo xam ne lam yoosia dénkaane wu ko xabli ca njëkk sama ahadun kenn xarraan dénkaane su daa ji rafet bu daa ji rafet nag mm. bu rafet la nag mm. xaawiyatan lu daa ji laq mm. xulaasatil maani way selli maana wa subat ak selli maana mu nekk dénkaane boo xam ne maana yu ñor moo maana yu am xiima moo ci nekk segg naa ko sellal naa ko tanqiiha man sellal ak koo xam mahada sellal na mu annusa laye biir mm. wajtahada te mu fallu mm. laykatu biir bu xam ne du rax dara ci naxe mm. na muy laye biir noonu laa ko defee lii ma la wax dama ko segg ba dara luy di doog mbóosóor luy di doog ay luuxóor amul na xaatuha sellal naa ko tan xii sellal la koo xam ne mahada sellal na mu annasihata laye biir wajtaada te mu góorgóorlu mm. faamal na nga jëfee mm. bi maa ci li nga xam ne masaltuhoo misaal naa ko mm. amalal la bii bi jëfi aji xelu axira sadi kay boromi njub li ma la wan nii jëfee ko jëfinu borom xel jëfinu nit ku ñor koo xam ne buñ ko waxee lii dëgg dafay fas yéene mooy ca bu ko rëcc jëfee ko hatta yaqoola bawa mm. annaasu nit ñi mm. ne haada siblu xalo gi mm. min zaakal asan mu ngi tukkee ci gaynde gola ci gëre gaynde jëfee ko bañ xam ne man mi la jur maa la yar summa qaala topp abu seydin ne yaa bu ne yow sama ndoom xadaw saytu dénkaane naa de wastaq saytu sama sax ba mu sës mm-hmm. te itam soril naa ci dénkaane mm-hmm. fay ne sa day ta booro yee dénkaane li mm-hmm. waa han dana ma héemu héemu la kañaal soro yee dénkaane li kon nit ku tekki ngay do ñoo nekk kat dang leen doy way ne sa day ta boo jàggee dénkaane bi nag boo ko bañee nag seeti leneen kon fa ah, han dana ma méttilu min kay teew kon daal xam naa sama yaakaar dana sax wallahu yàlla mm-hmm. xalifati mooy sama kuutal mm-hmm. alayka ci yow mm-hmm. kon baax na waaw ah, fi noonu ne kenn ku nekk wéttule koo rek waaw ah, yàlla na ko baax a baax la ci man demee noonu rek abbas ibnu abdil muttalib mu ngi bokkoon ci usaara badrin mm-hmm. xanaa loolu la dugg ci lislam wala duggoon ci lislam te ko nëbb mm-hmm. waaye ku soppoon a sopp yonent bi la fonk ko gannaaw mu duggee ci lislam mm-hmm. ku amoon cër la itam nit ku barke barke la yàlla joxoon na ko fukki doomi góor te ñëpp ñu baax lañ dawla na ko lool na Abbasin ki ñu naan hibrul ummati nit ku kéemaane wala sax nit ku kéemaane la Abdulaay na Abbas nit ku kéemaane kéemaane la te loolu bu baax a baax ci léppam nag waaw ci léppam nag waaw ci bindareem ci jikkoom ci xam-xamam yëpp dajee tumuraanke liñ ci nit ku rafet a rafet rafet la woon soo koy xool day wex tal doo ko mën a xool mu nekk ku mata mata mat nit nga xam ne su demee ci palaas palaasu ñaari nit lay jëm noonu moom moom la nit ku muusa muus la woon itam ku jongee jongee jongee ku xam ne kenn mënu ko dalal fanaan mm. ba nax xamul mm. kenn ku yeewoo ni moom mm. loolu itam dajee na ci moom loolu itam mbiram la mu nekk na nit ku bëree bëree bëri xam-xam lool nag ni mu xamee woon ayaamul arabi ak asaarul arabi ak nawaadirul arabi ci jamono moom rekk la ni mu manee woon tafsirul quran hmm. moom rek la hmm. ni mu bëree ay marwiyat ci hadis ci saaba yonent bi hmm. moom itam noonu la demee te itam ni mu bëree ay fatawa ci ay masala moom rek la Abdullah ibn Abbas Abbas dafa génn àddina génn àddina gi métti ko lool benn arabi yu ne ko hmm. isbir hmm. nakun bika sabirina wa innama hmm. sabru raiyati baada sabri raasi mu ne suñuy xol yépp ngi ci sa loxo soo muñee ñi mën a dëgg yow muñ waaye soo muñul nag comme ñun yow lañ jébbal suñuy xol ah duñ mën a muñ te bu kenn muñu ah dara du jag de ah bika sabirina da ngay muñ ñi mën a dëgg ci yow muñ wa innama sabru raayati baada sabri raay njaboot gi pour ñu muñ bopp bi mooy muñ parce que ci sa loxo la gis nga ko bu baax a baax mm. arab mën nañu wax de ñoom ñu dàq wax de arab dañoo mën a wax de mm. mu ne gis nga Abdullah ibn Abbas mii mm. gis nga Abbas mii su fekkee sàkku tiyaaba nga bëggee woon dundam bi su bi bàyyee ko soo ko muñee da nga am tiyaaba su fekkee teral ko nga bëggee woon mu ne fi yàlla mi ko jëlee la ko dàqa teral kon muñ war naa mën a nekk xayrun min al abbasi sabruka baadahu ñenn ñu ne ajruka baadahu waaw xayrun min al abbasi sabruka baadahu sag muñ ci gannaaw abbas la nga jëlee mënoo ko jëlee ci dundam abbas ci muñ abbas moo gën ci toogoon le feggoog abbas wallahu xayrun minka lil abbasi te tira nga yàlla ci abbas moo gën yow la nga koy defal waaw ñu ne fa kaana ajmala asa moo lu gën a rafet ci lu arab wax ci jaale dañ koy wax mu ci maxasi xayril wara inaara tudd ca ba ca demee foofu laa ko gisee woon mu ca dégg waaw soo ba da wii daa wal xam mu wam naa axawayhi ba mu koy sara wax na foofu loolu gis nga ko mun nga lay sama kuutal waajoo maa ngi yaakaar nag an la tuxlifa ba den ngay ngay wuute zan ni sama njortu bii ka ci yow yaakaar naa yana fi ma la foog daal fa ngay nekk dal de wax la woo ñaal ko ibnu hoo bàyyi ko yaa abati e yow sama bàyyi mm. laa wuudi a yàlla bu daanee lees al suka salalam nguur salalam nguur yàlla bu mu masa daan wala rufian yàlla bu yëkkatees naa suka sa tabbe yàlla nag defi nekk de fala xat xulta wax nga de sa dadan loolu jub nga wax de waxi mag la waan lam sax xamle nga rasa dan jub yoon wi nga la wanaxal tam maye nga maa mm. loo xam ne mm. lam yanaxal mosu koo may mm. waale dun jenn baay wala daan jenn doom xalaat yu baax yi nga jox ma ak yar yu rafet yi nga jox ma jenn baay man mos na may jenn doom lu ko mel na baay lu muy may doom xel mu xelaat bu baax ak yar bu rafet moo jëgal te lungu baax a baax dina ko baax a baax maa naxalat maa wahaballaahu limri in hibatan anfaa min aqlihi wa min adabi wama hayatul fata fa in fuqida fa faqaduhu lin hayati alyaqubi wala in umhirtu bu yéexee féema ban daka ci sa gannaaw su fekkee maala fi mujj te sax tànn ma lool de bakkan dafa sib dee lool man laa suutu te sax yàlla bu ma mën dee faq daka sa ñàkk <laughs> bakkan dafa sib dee waaw mag moom bay wax ak moom it nga am boobu jógee nag su fekkee mujj naa la bi te sax loolu sax de tàmmu mu ko de fala ta addaban na danaa yeroo bi aadaabi ka ci say aadaab asaliha yu de way hiw wala aqtadiyanna te danaa roy bi asaari ka ci say jeexit alwaadiha yu de way leer hatta yu xaal ba waxees ne maa lëb lu màgg ni du loona allaylata guddik tey gi bil baari hati ci biig guddik biig su ma la fi mujjee fi nga tegoon sa danaa fa teg tànkam bañ ne moom baaxalul bàyyam dara wal xaadiyata aji niru ji maanaam wal xaadiyata aji xëy wala niru suba wi bi rahiye bi rahiyati ci akala niru suba wi niru niru ngoon wi fa tasa dal di bég jaayu abu zaydin abu zaydin li jawaabihi ngir tontal doom ji wabtasama te mu muuñ Abu Zaydin daal di kontaan wa mu wax doom ji ne ko ah man asbaha abahu fama salam ah man asbaha ku ni duna dey abahu baayam fama salama tooñul kenn de ni du sa baay daal ku ko def dem nga loo war a def tooñoo kenn ibnu Hammaam Haaris nee na ko solos na ma dégg naa ne waxu bitu solees sololees na ma mooy dégg naa ne an na bani saasaana banu saasaan xiina samia waxtu ba ñu déggee haadihil wasaaya yi lay dénkaane haadihil wasaaya yi lay dénkaane alxisaan yi lu muy rafet faddalooha gënal nañ dénkaane yi ala wasaaya luqumaan ci dénkaane yi luqumaan yi wa xafiduha te ñu mokkal ko kamaa toppaasu ni ki defi mokkale mm. ummal qur'ani fatiha mm. dégg naa ne banoo saasaan bañ dégloo dénkaane yi ba léegi mm. dañ ko fonk moo leen gën al hikkamu luqmaan dañ koy mokkal comme fatiha hatta innahum ba ñoom sax day la yaraw na haa danañu ko gis ilal aana ba léegi aw laa ma muy gën jaahi ni nga xam ne laqanuhu salañu ko asibiyaana gune yi waan faxate mu ëpp njëriñ lawum ñaar gune yi min neexlak leqyaan ci maye gu lu sell ñu ko jàngal seen gune yi gis ne jàngal leen ko sax ñu xam ne ñoo xamee dara moo gën di am leen jox ba am na foofu beneen incha allah